foo pare dem cliquer wa barakaatu mbokk mi di laaj ne ku demoon ca wane ba noppi defaru génn ñëw di jàpp waaye bi mu tàmbalee jàpp nag ci la mos ndox mi mu doon defaroo gis ne daa am caf ka daa soppiku mu tuur ndox mu wuti mel ne ndox mu ne ndax day aaje mu defaruwaat wala du ko jar hakay dana aaje mu defarwaat ndax tahaaratul xabas ndoxum mutlaq lañ koy defee loolu mooy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lay doon ginnaaw nag gis na ndox mi soppiku na kon mën naa am sobe sa set na waaye nag laabut kon faaw bu amaatee ndox mu seet ba gis ne baax na day dem laabuwaat su ko defee nag door a mën a ñëw jàpp wallahu taala alam mbokk mi laaj tafaara ku koy def ndax dañ koy toftale nee na ñëw ci aaya bi nga xam ne goreel jaam wooru ñaari weer ak leel juróom benn fukki miskin wala nit ki mooy tànn bu ko ci neex waaw bu dee kafaaray koor de dañuy tànn loo nit ki diggante ñett yooyu doon da ci mazhab bi nag euh, joxe ñam wi lañ gën a taamu waaye moom aji kafaara ji mooy tànn joxe ñam wala woor ñaari weer walla goreel jaam da jaam jaam waaye bi bi bi rëcc bi nag ci zihar lay wax wax soxnaam ku nuróole soxnaam ak ginnaaw ak yaayam wala ku ko araam kooku moom balaa sañu del si day kafaara te kafaar bi dañ koy toftale foofu moom goreel jàmm moo jiitu su ko mënut woor ñaari weer su ko mënut door la juróom benn fukki miskin wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj nee na wat ab sikkim lu ci lislaam wax wat ab sikkim de ci mazhabu Maalik bi ñu nekk dafa xaram naka wat ay naanu yooyu wañ mënees na koo wàññi ab kimit bu guddee manis na wani. wàññi wat ko ba mu jeex moom ci mazhab bi dafa xaraam bokk na ci li ci sëriñ Mbàkke bu sa mos a bind xasida goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa shaaribin xaraam taadibu man yafaaluhu ala al wax ne wat ab sikkim ak i naanu dafa sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen bañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jékki-jékki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ci moom yërëntaloo ba mu jox la ko te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day tegtale ne ànd nga ak moom ci nekk sañ nga ko lekk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul lool laaj nekkoo di yëramtël bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu wula yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ku ko joxee ko kooko nangu ko day day tegtalee ak nangu gum la mu nekk ànd gum ànd ak moom ca lam nekk bu baa du dagan ci moom du ko lekk kon kilifaam Euh, sañu ko lekk ay ak njaboot tamit sañu ko lekk ndax alal ju xaraam la alal ju xaraam nag kenn du ko dund sa njaboot moom araam na ci moom góor jigéen ji araam na ci eh, képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xàjj tere ko ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te koo it laaju ko yërëmtalu bañ jox ko sañ la ko lekk wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kàbbar mu daal di kàbbar ci ginnaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooko day fay tisbaar wala boog day julli tisbaar la bëgg wax xëy na mu ne ba mu julli ñeent ak ay sëlmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbaar ndax julleem nga dina wér ki roy ci moom julleem wérut ndax daa bokk ci sàrt roy ci masab bi ngeen bokk julli gi ngeen julli te moom day julli tisbaar yow nga julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbaar jeexagut muxtaar bi moo jeex waaye daruri jeexut bu takkusaan jotee kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awray moroomam ba ban yëg ci bànneex luy atteb loolu yooyu day jaaduwut lislaam bu warisu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awra ci waaw ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg a mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko mu doon ñëw ci ñoom loolu wan sa aw keneen ab jullit daganti moom mukk bi ci des si sa ñaari way dañ ci ci bopp nit ci boppam xool awray boppam ci lul ngànt dañ koy tere bokkul ci tegin lislaam gis sa awra ci lul ngànt wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax jullit am na sañ-sañ ci yar ab xaj ci lislaam ab xaj dañuy tere ku ko yor lu dul xaj boo xam ne ngir garde la wala ngir rëbb day liggéey day dund ci rëbb wut xaj bu muy àndal mu di ko rëbbal wala muy sàmm ak jur wala ay tool wut ab xaj mu di ko gardeel xëy nag mën nañ cee dugalaale ku am këram ragal ay lor ñu wut xaj bu koy gardeel këram waaye bu dul yooyu nag ngir def ko looy bànneexoo looy wettali ko rek loolu daganut ci ci lislaam daganut ab julit di moom ab xaj ci anam googu wallahu taala alam mbokk mi laaj kuy jaayante ci yoonu murit di jébbalu ci ab sëriñ yan kàddu lay jëfandikoo jaayante de mooy jébbal sa bopp kilifa gi ngir mu wommat la ci yoon yàlla yëpp kàddu guy tekkee loolu rek mënees na ko jëfandikoo moo xam day ñëw ne jébbalu naa ci yow la moo xam dañu wax naa ngi jaayante yow maa ngi fasante kóllëre topp sa ndigal bàyyi say tere lépp luy tegtale daal yow jël nga sa mbir daf kii kilifa gi ngay jaayante moom mu nekk sa kilifa am nag lu ñuy tuddee albayaatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind euh, wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne am murid buy jaayante moo koy wax waaye mel na ne nekkut lu yaatu lool li yaatu daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilifteefam teg ko ci loxoy kilif kilifa googu rek bari jaayante la wallahu taala alam mbokk mi laaj ne dafa dégg ku wax ne ku naafila ginnaaw gee boo noppee nga teg ci sa fawitar boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat sa fawitar am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj sa fawitar boo naafila ci guddi gi te nar julliwaat te bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safa wetar muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy lañu xam mooy li gën mooy safa nekk li ñuy mujj julli ci guddi loolu ab xarit si ñëw safa nekk li ñuy mujj julli ci gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi euh, mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na na bàyyi safa wetar ba waxtu woowa bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujj julli ci guddi gi. donte nag nit ki bu julli woon safa wi julli gee def ay naafilaam tekki safa wi tam roppi bu yeewoon ci guddi gi bëgg a julliwaate duñ ko tere moom waaye nag lële gënu gënoon ndax bu waaw moom euh, euh, mujjewul safa ak witar waaye du fee nag lële baax na kon ki nga xam ne wóoru ko ba xam dana yow wala déet kooku ne julli def safa witar bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du ba du du du baamuwaat safa witar waaye li gën nag mooy mu mujjee safa witar moom wallahu taala alam moo ko muy laaj nee kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsh la sujud yi ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku kon nu muy def waaw sujud ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngër yi dañ cee wuute ci mazhab Malik moom fukki sujud ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk riwaayatu warsh yi ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujjóot ak benn kon koo xam ne ci masab maay la nekk fukki sujjóot ak benn yooyu lay sujjóot ak téere bu mën a jàngee nag fukki sujjóot ak benn ñoo ci mooy ku yor ku nekk ci meneen ngeen nag yu sujjóot fukk ak juróom mu sujjóot sujjóot yooyu wallaahi mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ndax lu wér la amna hadith bi wax de ku faatu ba ca gub ajuma wala guddik aljuma eh, ñu musal ko ci mbugalum bàmmeel hadith bobu re ay wuti amna ci waye euh bu hadith bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam nangu nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangu la wallahu taala alam su fekke nak canal bi euh abonné nga ba paré euh vidéo yi ñi def de ko partager ci réseaux sociaux pour ñaneen mën ci jot ci jëriñ fekke nak yaang may sétante abonné go c'est très simple